wax loolu rek suñ fekkee modération de daal amul au niveau du kër fekkee éclairage la yéen a ngi xool seen bët ngeen yor yéen a ngi su fekkee ay euh, assainissement la amu fi su fekkee ay goudron la amu fi su fekkee poste de santé la amu fi y a rien au niveau du kër chef xale yaa ngi nii liggéey jeunes yaa ngi nii femmes ay GIE lañu organisé mais y a rien au niveau du kër chef on travaille non financement am ay promesse ñoo xam ne dañuy dig ndox mi mooy la la même chose am nañ ay dañ ñu ay branchement provisoire yoo xam ne booba léegi gisuñu ko dégguñu ko donc xay jigéen ñi sonn nañ loolu la ñuy dugg ñu ngi marché ñu ngi ci robinet yi ñu ngi fune donc kon lépp rek dañ koy wax pour ñu dimbale njabootu kër Cheikh Ibrahima Fall. suñu yaakaar moom fi mu ne effectivement ci Lat Diop lañ ko am mooy li ma ko wax léegi suñu yaakaar ci yow lañ yëg su amee ci yow lañ ko yëg su amut it xam ne ci dañ ñëwoon tey fii ci Diourbel ànd ak uh, waa kër sëñ Modou Mbenda uh, ñu woote waxtaan ak population yi pour ñu ñëw jàppale président de la république ci élection yi nga xamante ni ñu ci ñu ngi ciy jëm. doléances yi ñu fi dégg aussi dinañ ko àggale fi ñu ko war liñ ci mën dinañ ko ci def ñu xam ni liñ ci mën rek lañ ciy def man moom personnellement du ma dig kenn dara la ma mën rek laay def waaw waaye liñ fi wax moom dégg naa ko bu baax a baax a baax te fañ ko war a àggale dinañ ko fa àggale jàpp naa ni violence amul Sénégal dafa am ñoo xam ne dañu teg ay règle pour bokk ci élection présidentielle règle yi ñoom mënuñu ko matal charte yi mataluñu ko donc ñu ñu ne leen doo leen bokk yoon la ñu yëngatu tuuti tuuti waaye jàpp naa ni ba fi muy mujj mooy sénégalais yi xam nañu duñu deewal kenn xeex boobu du seen xeex ñun sénégalais yëpp seen xeex mooy le vingt 24 février ñu dem votel ki leen neex ci jàmm dem toog seen kër donc xaar déglu résultat yi.